Oustaz Mokhtar salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Haj Babacar delloo naa la nuyoo bi ak ziyaara. jërëjëf Oustaz yóbbalu bés bi. waaw Haj Babacar yóbbal bi de tey nag dafa nekk ci bés bu nga xam ni ñu jëm ci guddi àjjuma guddi àjjuma bi maanaam guddi bi bokk ci guddi yi nga xam ni mag ñi dañ ko daan fuklu di ko xaar di ko yeeru. pour guddi gu bu yegsee ñu am profito ci wax ak seen boroom li ñu war a wax ak moom xaaj Babacar moo tax guddi bi ku yàlla may nga fekke ko nga wax ci guddi gi ginnaaw bi nga jullee gee safa witar ba hmm. pare toog yor sa kurus wax astaghfirullah al azim min kulli dambin astaghfirullah alazim min kulli dambin boo yoree kurus boo xamante ni bii téeméeri per la nga wër kurus gi fukki yoon ak benn teg ci fukki per ak benn xaj Babacar lii ku ko def hmm. du ñu la wax dara da ngay xool rekk balaa weer wi di dee dinga nga yëg li taxoon nga toogoon def lii lan la la jural loolu moom mag ñi dañ ko daan kar kon nag yàlla may nañu fekke nañu tey ci bëccëg bi. Hmm. yàlla nañu fekke guddi gi ba ñun ñëpp ñu mën ko defandoo. amiin. ci junni ak téeméer ak fukk ak benn ci astaghfirullah al azim min kulli danbin haj hmm. Babacar. Oustaz Mor jaajëf euh, ba altine incha allah gën nu ko yóbbal